lii nag bokk ci suñu liggéey depuis ñu gis ko il di jour dix mi ngi ci dëkk bi ñu alerte mbuur la amee woon ñu dem fa ñu xool après ñu alerte mais réaction amul xam nga nag Sénégal man ni ma jàppe bala ñuy réactionner dara rek foog mu ëppi loxo bon parce que mbir mi ci quarante presque quarante trois ci géej fa la benn genre ndox nekk ndox mi njànd lañ ko tudde mais dafa mel ni produit bu ñu fa sotti la produit boobu nag la ñu jàpp ni à l'heure actuelle ci li ñu jàppagul moom moo war a indi effet bi mu am

day japp ba ci sa souf ko def ko genre waga soit produit la soit dëkk bi tamit bon ci xalaat rek la na tamit parce que geej gi dafa bari ay koor ay nit ñu ci bari na ci torop ren vraiment bari na la am du mais comme le ministre de la santé bi nañ ndox mi même ñun ut ñu dañuy ndox mi suba buñ ko ñu ko docteur pour mu analyse parce que du ñu bàyyi rek gars yi dem ñëw ni ñu lii la wala lii parce que tamit lii buñ continuer mën na indi jafe-jafe yu metti ci géej gi non seulement ci jën wi non seulement tamit ci doomu aadama yu dugg ci géej loolu moo tax nag ñu ngi alerter àdduna bi yëpp vraiment pour ñu gën a taxaw nappkat yi parce que ci atum ren ji ñu ngi wax licence de ñu ngi wax accord de pêche ñu ngi wax waga bu dugg ci géej gi bon bu yàggee ñu nappkat yi fan lañ jëm dañu ragal ni mën na wàllaate moo tax ñu jël matukaay yi ñu jël parce que ñi nga xam ne daal da leen dal boo solee ay bot wala nga sol siré dalu la ñi mu dal ci kanam la leen dal ak ci loxo ak ñi solul ay bot ci seen tànk constat boobu def nañ ko ci mais jàpp nañ ni tamit mën na indi wàllaate parce que boo xoolee ni muy évoluer mën na indi wàllaate loolu moo tax ñu jël matukaay yi pour indi leen fii très rapidement pour xool ndax mënul wàllaate am déet parce que tamit bu ñu ji fagarul parce que ñu ngi woon sànq ci ay 73 mais da ngay jekki-jekki ñu waxaat la feneen waxaat la feneen au fi mu ne ñu ngi bëgg a dem ci 100 personnes